Je suis content de ñëw ici président ODCAV ak président Zoni, l'ensemble des 27 ASC de la commune de Rufisque Ouest pour jox leen équipements, équipement jox leen ballon ASC enveloppe symbolique de 100 000 francs d'accompagner accompagner aussi de zone yi nga xam ne dama commune bi je euh, ma def ko en tant que fils de cette commune ñit ñi war nañoo xam ne ne tey du ma euh, ku bees si mouvement nawetaan nekk naa fi président ASC pendant dix ans nekk naa fi délégué nekk naa fi sax vice président ODCAV loolu yëpp su ma ko nekkee tey ba yàlla jox ma yeneen dopp tànk yàlla wërsëgal ma li nga xam ne maa ko moomal sama bopp war naa kaa mën a bokk ak ñi nga xam ne ne ñoom laa yàggat di nekkal loolu moo tax ma rafetlu tey seen présence fii bokk ak ñoom loolu te di jël engagement nekk que du foofu mbir yi demee dina yegg si yeneen zone yi pour aussi mën leen a jox dimbal bi nga xam ne ne war na pour accompagner jeunesse wu ñàkkul woon que nit ñi am nañu woon jaaxle ak njaxre ndax nawetaan dina am wala du am ndax feebar bi ñëpp la ëpp seen bopp mais si seen engagement seen détermination respecter euh, protocole de santé yi bi nga xam ne ministère jox na leen ko pour que équipe bu nekk bala ngaa football sa équipe bi day vacciné say supporters yu vacciné rôle boobu nga xam ne joué nañ ko contribuer na ba nga xam tay euh, fièvre bi wàññeeku na mais appel bi du yem si ñu continuer protéger suñu bop vacciner def leneen damay lancer appel pour que ñu mëna def quand même une année de nawetaan sans violence ñëpp xam nañ ne at yi passé yëpp nawetaan likay yak wala likay arrêter autorité administrative di jël ay mesures moy violence di si aj ay équipe di si gaañ di ci yàq jambour lolu war nañ ka mettre fin à cela L'initiative initiative bi le concert avec les zones tas zones yi nga xamné ñi won sax ci sen euh, compétition yi donc li ñuy xex ni ñëpp war sé nous dañuy ñaan dirigeants supporters qui ont un serment d'avoir une année sans violence Nous daf ñuy encourager nous en tant qu'acteurs politiques, pour nous mener de di ans à 9 nous devons nous accompagner parce que finalement, nous bëgg nañ koy ans, mais nous tax tey violence di confirmer que Rennes, reine est encore parrain ce n'est pas la première fois ce sera la troisième année et que j'ai toujours accompagné l'ODECAF de Rufus en tant que président de l'institution, que cette année aussi, je vais accompagner, mais je ferai, je, ferai au-delà de moi-même accompagner Yaren Zone aussi, nous sommes département, ici commune de